jongante yowoon ca mun na foo ko natt rek wees na ko ci wàllu métit ak wu tiis observateur xëy ñëw ak ñun ci xibaar yuñ ci nettaleegul ba fii tukkee nag ci ujaaj yu dund jéey ji foofe ca màkkatal mu karam ci seede ci yéenekaay bi ku naan Pape Thiam toll ci fanweeri at ne daa mujj di dox ci kaw néew yi ngir mën a rëcc gis na fa liir mu ne boo xamante ni la ko tàqaleeg yaay ja mooy yaay ji ci boppam la ñu joggate ba mu faatu moom Pape Thiam sax ne moo aw gune gi ci mbaggam ngir mu sawe ab naar la ko dénk ginnaaw bi mu ñëwee ngir jël siwaat la buuxantee jolli takar jaxase yëf yee jaxasoo ay fan ngi nag mu ne du nelaw ndax naqar woowee beneen ujaaj di seede Pape Safi Mboup lay wuyoo toll ci fanweer ak juróom-ñaari at ne kenn ciy dëkkandoom moom nekk foofee ca Màkka bi jéey ji amee léegi daanaka dafa tàqalikook sagoom day waxtu rek moo waral El Hadji Gueye ujaaj beneen ci observateur ne soxla nañu suñu ñibbisee ay psychologue di docteur yi xel soxna Tabara Aydara toll ci juróom benn fukk ak juróom ci at ñàkk borom këram gu mu àndaloon aji ne moo ne diggoon na ko jël si waat ko cib dalam ca morgue ba muy tiis nag ci soxna si nga xamante ni dund na ak moom juróom fukk ak ñaar ci at ndax nee na bi muy am fukk ak ñetti at la ko jël mage woon ko fukki at tiis la ci njaboot gi nu fi ba ca Malika li moom doomi Sénégal ya faatu nag ca Makka commissariat général pèlerinage juróom ñaar la wax juróom fukk ak ñaar yu réer fukk ak juróom ñett yu ami gaañu gaañu la tribune ne la mu ci am moom ci xayma tukkee ci voyagiste weddi na li commission bi wax nde gën caa gàtt ñeent yu faatu lu ëpp juróom fukk ñu réer El Pala Mbeng ba tey ci la tribune ne ëpp na juróom-ñaar fukk ci ñi réer nag soxna Ayda Njaay Badaloo Walfadjri ne ay mbiram soxna si ak xiini miini la ba fii ndax tàgge nanu ko ca bi fii bokkul ci liste bi commission bi siiwal Walfadjri ci weneen wàll xamle ne ak jéeg mun na jéeg Sénégal ak lam ci ñàkkale président Macky Sall suñu bisee New York dina ci yëkkati kaddu yéenekaay bi ne ciy xibaar ci New York gamu ne sax président joxe na ndigal ngir njiiti diwaan yi gouverneur yi rawatina ñu taxaw cim xel njaboot yi ñàkkale ca yegge leen njaalu nguur gi témoin am populaire mel ni ku naan fii la tàmbalee nag ci Sénégal ci wàllu organisation dem gi ministre affaires étrangères Mankeur Ndiaye ci yéenekaay bi di ci ñaawlu rëq-rëq yu bari am ren ci aj gi mu ne lépp problème management la ca njëlbeen nag mu ne lépp luy njàngate dinañ ko ci def lu mu laaj ci dogal dinañ ko jël populaire defab gaaral ci commissaire général mi fi doon wax ne du démissionné bu nuy daanu sax ngànnaay ci loxo lay doon ñoom soldat si mu ne su yi koy daaneel di bawoo las wax ci paatu mu ne gu soxna suñ naan Aïdara tolloon ci fanweer ak juróom-benni at bàyyi ginnaaw ñaari doom France la bàyyi ko bu yàggul ñëw ngir gunge si ànd ak yaay jëm màkkatal mu karam ndeke fa yaay jëm ne ca màkk gamu ne boobaak léegi kenn mënu ko defal yéene kaay bi di laas ne du moom rek soxna si de ndax daanaka ujaaji Sénégal yépp bi géej gi léegi ca màkk danoo jaxasoo leneen ci yéene kaay yi kàddu yu ci conférence de presse bu ndaw yi Mbacke Mbacke yi enquête ne wala di yeew gémmiñ ga toolam mu ne géew politique bi la ca xeex ba muy xeex bu war la ci gis-gisam xeex beeg Macky Sall Serigne Assane Mbacké ci observateur ñu jàng ca mu naan président Macky Sall dafa ay gaaf dafay war a jugee moom président Sall nag du noonee la ko njiital Amérique gisee ci le soleil moom Barack Obama tudd na ko nguuram ne misaal ci wàllu yorin wu sell terewul ci wàllu njàng mi moom war nañ ko xoolaat nde ci le populaire jàng nañ ci lu jëm ci résultat entrée en sixième yi ne daa wàññi ngi bàyyi ko juróom-ñeent fukk dem ba juróom-ñaar fukk ci téeméer yoo jël wàllu wér sas di artu nguur gi lu jëm ci seeni tawat ci wàl fajri ñu jàng ca mbaalo jacaam ak ñoñam di jox nguur gi weer maanaam fanweeri fan ngir saafara seeni tawat lu ko mooy ñu ne danañ tee lépp luy xibaar ñeel wàllu wér-gu-yaram ca ku ne xam nga ni su boobaa ak paje du yomb wàllu sport football stade yéenekaay bokk na ci li mu xëyee tey doomu Sénégal bi di Baye Oumar Niass di football ca Russie juróomi but dugal na ko gën a ràññu ko ci fànn woowee waral yéenekaay bi jàpp ne mooy locomotive bu Moscou ga muy footballé maanaam mooy saxaar gi ñoo di wagon yi du ñàkk Aliou Cissé bàyyi ko xel Aliou Cissé mi jour de sport jàpp ne ku am fit la nda ci wàllu match amical di jongante xaritoo du jël équipe bu tuut ginnaaw Ghana Algérie la jël football beeg lu yéeme ci match ca Brésil jour de sport yegge ñu ko arbitre bu fa génne pistolet ci digg match bi ca Belo Horizonte la amee arbitre ba ndeke policier la ne ba ko entraîneur songe ngir sàkk mu génne joueur équipe bi ñuy football ndaxu foot boolewu cay wax ca vestiaire ya la dem génne pistolet ba mu